des manquements qui ont été observés moi je ne suis pas d'accord man ne suis pas d'accord déjà poste premier ministre parce que c'est très important poste premier ministre mon poste qui xamné moy bouclier au président de la république xamaloon lu tax ñu def ko ñu melni ñom sonk yi dit nga xamné suñu buggee yuuxu président

Idrissa Seck gisuma ban njëriñ moo tax ñu indi ko dans le pouvoir gisu man gisuma njëriñ bi parce que su toogoon ci position boobu nekk chef de l'opposition par avant tamit lay nekk ci président de la république ndax du ko jël troisième mooy ñëw di tëb ke jël deuxième di am baat ci réew mi yooyu nag ak euh, état économique bi réew mi nekk moo indi débordement bo xamné euh nit jóge fa yaakaar ne déjà euh, <laughs> ils ont assez de force pour marcher au palais di jox ay ndigal président de la république ñàkk a homme d'état tok toog le président di ko wax li ngay def li ngay def li ngay def lool fan lañ ko teg mais ci point bobu lay taxaw ngi dafa melni yow ci ñuy nek ci pouvoir bi ah, di lu li nga xam mom moom di eh, Idrissa Seck ñew bi mu ñew ral yow ci yeen ah, dafa melni ci nga bok suñ ma laajoon suma avis parce que c'est pas quelque chose qui a été discuté mm-hmm. au niveau des structures que nous partageons moy mm-hmm. directoire di secrétariat exécutif national etc. On n'a jamais, moi j'ai jamais eu ce débat-là mais débat jox suma avis avis bon man on a jox comme débat bi amul ne mhm. moi je vois pas. mais quel est ton rôle en tant que ministre conseiller auprès du président de la République du Sénégal. bon je conseille le président sur les domaines de mes compétences et mes compétences sont je suis un expert en valorisation des mines et Je suis un expert en traitement des eaux. Je suis un expert en euh, énergie renouvelable, etc. J'ai un double doctorat d'État américain des, sciences de la terre et de l'environnement. Donc, sur mon domaine d'expertise, c'est la yem té ci lolu motax de président de la République du conseiller ci lolu.

wala neexu la te yow yaa ko jiital doo ko faqatal le président a décidé de l'amener cëral na ko jox na ko fi mu war a toog et cetera mi ngi déroulé ñun ci loolu la ñu mun on fait confiance au président de la république mais laajuñu man de laajuñu ma mais suñ ma laajoon dinaa jox suma avis mais teewul tamit su ma ko joxee suma avis mu def le contraire du ma ko suivre ça c'est pas un, un, lieu de, de, frustration ou quoi que ce soit. Parce que.